bés bu njëkk ci couvre-feu bi nga xamante ne nguur gi dogal na ko nekk na coono bu rëy ci askan wi rawatina ñi liggéey ba wàcc war a ñibbi seeni kër ñenn ñi yàgg lool ci arrêt car yi ñeneen yi ñàkk pexe dox la ñuy mujjee. ñu am suñuy doom yu jógee bitim réew ñu war leen jëli ba aéroport sinon n'a pas les gis nga trafic bi nu mu da ngay taxaw ñu lay naan ay aéroport dix mille mille donc xale boobu noonu moo war a jëli tey jii nii bu ko oto bi avion bi wàccee fii à vingt nan laa war a def pour bu ma fa taylee fa après du ma am problème a tubaab yi léegi ñu ne dama tayle xale bi foofu noonu heure bi nii lu tax gouvernement bi sóorul lool noonu. déjà maa ngi fi depuis une heure de temps donc instant bi dañu sonn dañu fatigué ñu ngi war a dem ñibbi Mbour di xëy di liggéey chaque jour lii ça ne se fait gis nga circulation bi nu mu mel itam doxul. sonn laa def fi mu nekk nii gis nga oto bi la ñuy xaar ba léegi nii oto bi amaguñu oto. man maa ngi ñibbi kër Mbaye Euh, man def naa fi presque une de temps amaguma oto par fi ah vingt et bu ma fi fekkee nag problème laay am il faut que ma retourner dem surcharger si ñi ma xam ci Grand Yoff ma fanaan foofu te loolu dina doon li ma ganul parce que ab njaboot laa yor. wallahi azim yàlla nañu yàlla atte ñi ñu teg coono bi parce que lii neex ne qu'on se dise la vérité oto amul amuñu oto dañuy dox Yoff laa jógee dama liggéey wàcc naka ñibbi maris dama koy dox au regardez-moi ça les mains andi feebar bi lan la bañ rassemblement li du rassemblement mais constitution bi li du rassemblement monsieur Sall bu dee yaa ngi gisee tan après s'il vous plaît xoolaatal yaa ngi amee population bi ak ah yaa ngi ameel ak nag. ñëpp di ñaawlu waxtu couvre-feu bii nga xamante ni bu doon seeni sago ñu xoolaat ko. mais couvre-feu bi instant bi heure bii du yon franchement parler du yoon waruñu ko woon def heure bii ñun dañuy liggéey. am 9 tent 30 di wàcc vingt h ça ne se fait bi ñu jël man dama xamul ban xalaat ban critère lañ ko teg. nag ku nekk toog ci këram 21 vingt 28h amul woon daje sax bu dul woon kufur foofu ban daje moo am ci 21h daje mi nga commencé depuis 8h du matin jusqu'à 18h ba tasaaroo am man de loolu moom mooy sama xalaat pour man lii de changé wul dara xanaa dafay yokk mbir mi rek. nit ñi bëgg a ñibbi seeni kër ñaawloo gàllankoor bi état d'urgence bi jur. jaaykatu lekk yi tamit ak seeni client noonu. client yi daal instant yi nii mi ngi nii dama bëgg a wàcc parce que heure bi jot na koy damay wàcc léegi nii de ah, ay trois heures ay ay trois heures boo boo cinq heures léegi ma tëj sax léegi ma tëj. wàññi naa bagage yi yëpp waaw bagage yëpp wàññi naa yàpp bi pompiteer bi ak mburu bi yëpp dama ko wàññi woon instant yii man maa ngi bëgg a tëj sax waaw damay tëj léegi. Amadou dañ fi dañ fi daa ñëw ay 18h 18h30 ba minuit way pour jënd ñu lekk mais actuellement vraiment ça va pas. pas du tout lu tax euh, dëkk heure bi ñu décrété baaxul nit ñi dañuy liggéey wàcc mënoo am oto bu la indi jaaykatu cere yi ñëpp. ki jaay lek daw nañu le problème c'est quoi nañu bay nit ñi ñu dund amun non nak bu sañon ko fur fur am waaw ah, pour nit ñi am na ñoo xam ne ñu ngi sonn bëgg a ñibbi te mënuñoo ñibbi moo tax client yi dañoo mujj soppi seen i habitude ngir rek ñu am lu ñu bëgg am na yoo xam ne du dëgg du yoon yow ville place de l' indépendance du fii di am te da nga ko daan am à tout moment def Eh, te gis nga ak ni mu demee nii dafa tax léegi da ngay précipé affaire yi te lépp dara doxatul depuis cinq heures six heures nga arrêté li ngay def pour daw mën a dem uti loo lekk fast food yi tëj na restaurant yi tëj na li ngay obligé léegi di jënd cere moo fi sës pour nga mun ko franoo mun ko réeree askan wi jàngonteel ak jafe-jafe di ñaax girek gi rek musóoraale ko ndax nous devons continuer de dire. Je lance un appel au gouvernement, M. monsieur le président de la République, à son ministre de l'Intérieur, nous devons faire des choses. Nous devons faire l'aéroport d'abord. Nous avons appareil, reposer sur le territoire national à 21h pour nous sortir. Déjà, si je suis dit de retourner, aussi, ma un problème de nous je galère. À 21h, je vais mettre l'aéroport à 6h du matin, 4h, 5h de temps.

bu la ko si euh, ba nga fi jugee on est sans égal mais bay ñu ñu liggé benn fan bi ñu waté couvre-feu ak état d'urgence talibi dafa dal di xat auto yi waxi nopi taxna ba fenn ci yenn gox-goxaan yi ndaw ñi dañoo dal di wane seni naqar diko feussel ci ay taal ak galancor dem bi ak dik bi.